Kebeer jéggi na si yoon wàcc na jël na Tapha Tine na Tapha a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy daan na jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi topp ci Leewtoo TV biir réew ak bitim réew leen bëggee bu baax leen nuyu ku ci nekk turam ak santam soo gisee niñ toogee nii nag nga xam ne xew-xew làmb moo amaat jotaay làmb ma toog ci sama mag sama xarit di mbay baaba kañ nar a fas waxtaan ci ponk yu bari maanaam xew-xew bu mag di la 8 ut ñëpp xam nañ ne le 8 événement bu mag a mag a mag moo am diggante Tapha Tine ak Boy Niang damay nuyu sama mag ji rek daal di ñëw nara leen feccil li nar a xew jour boobaa sama mag ji maa ngi lay nuyu mbay Babacar jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu suñu xarit yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV comme ni nga ko waxee euh, plateau bi ku ko gis xam ne émission bi mooy jataayu làmb émission ba nga xamante ne bi làmb rek lañ ciy waxtaane ci làmb la ñuy commencé wante ci làmb la ñuy yem fas yéene waxtaane nag comme ni nga ko waxee ci combat bu nara dox ci diggante Tapha ak Boy Niang di fas yéene am incha allah le 8 août ca arène national ca noonu nag dina waxtaan ci ñetti poñ ñetti poñ nag nekk lu dul li nga xam te ne mooy combat bu mag ba nañu waxtaan ci face to face ya waxtaan ci li nga xam ne ne mooy diffusion ba maanaam PPV ya Mbaye Babacar. incha allah dinañ dugg ci point yooyu bu baax a baax waxtaan ci man ak yow ñu pelloo ci nga wax ma ci sa xalaat ma wax la ci sama gis-gis incha allah loolu ci kanam tuuti lay doon foo baateree rek ma coupé incha allah bu neexee yàlla. te la may commencé nag buñ nee mbër ne jaar jaar ne palmarès ci ko palmarès ci ñaari mbër ya mm. waaye man nag nga xam te ne nii mooy Boy Niang di doomu dégal borom curuxu curuxu l'enfant de Pikine ci moom laay dooree boo ñaam mu ngi dugg ci làmb ji 2008 2009 daal di njëkk a bëri ki nga xamante ne nii mooy Amadou Diouf la njëkk a daan ci làmbam Tapha mu ngi dugg ci làmb 2004 2005 li mën a jàpp ci palmarès am am na 18 combats am na 13 victoires am 5 défaites Tapha Tine moo daan saa Kajoor numéro 2 ma fàttali leen Boy Niang am na 16 combats 3 défaites 13 victoires loolu palmarès bu riche la Euh, Tapha Tine daan na Talla Gaynde Boy ñaa daan na Akon Tapha Tine daan na El Hadj Diouf Boy daan na Mbës Tapha Tine daan na Yékini Junior Boy Niang daan na Brise de Mer Tapha moo daan ki nga xam ne mooy booy sëy Boy Niang daan na ki nga xam ne mooy Pape Sène Tapha Tine moo jàkkaarloog Abdou Diouf les géants di Waalo defal ko bagage borom curuxu curuxu daan na nga xam ne mooy Dolf borom saakaande moo daan ki nga xam ne mooy Cek bu pikin borom kopp fonday moo daan Saaka Joor ki nga xam ne mooy Tafatine daan na ki nga xamante ne bii mooy Elton bu école de lutte Balla Gaye. l'enfant de Pikine daan na ki nga xamante ne mooy Double Less. Tafatine jàkkaarloog Bombardier door ko ba ñu nangu ko ci ay loxoom arbitre jox ko euh, victoire par décision arbitrale. mu daal di ñëw daal di xam ne mooy Baye Mandione. Tafatine jàkkaarloog guy gi daan ko. yóbbu ardo ki xamante ne nii mooy Garga Mbossé raxu Zos. Tafatine ba léegi ñu jox ko Zos mu daan ko. boo ñaan jox ko guy gi mu daa di koy daanaat. Tafatine. ki mu mujjee bëreel mooy Yékini Junior la mujjee bëreel euh, daan ko jël ba nga xamante ne bi amul benn werante kon mën nañ jàpp ne daan na ki nga xam ne mooy Yékini Junior ñaar yoon. daan ko ñaari yoon. Mhm. booy ñaar daan na mooy Sa Thiès ki nga xam ne mooy Doublesse. ndax mhm. ko Balla Gaye numéro mhm. ki nga Lac de Guiers nag ci defet jëleen jëm Mbaye Babacar ah, ñu dugg ci ñoom ñaar ñi nga xamante ne bii ñoo leen daan Boy Niang Bazooka daan Tapha Tine daan na ko Boy Niang première def itam mu ngi ko amee ci kanam ki nga xam ne mooy Amaneex Tafatine Issa Pouye la Kayma de Thiaroye daan na ko. mu jugaat ki nga xam te ne mooy Zos borom dóor dóoraat daal koy freiné. Tafatine Lac de numéro 2 daan na ko ca Kalaaf ba. Boy Niang Lac daan na ko. kon ñoom ñaar ñoo bokk ñoo bokk foofu adversaire ñaar dafa mel ni bokk nañ quatre adversaires en commun kan ak la. ci kanam dinañ ci ñëw. Mhm. Euh, Tafatine ba léegi ki nga xam ne mooy Ama Balde daan na ko Balla Gaye numéro daan na ko. wax nga ko sànq mu mel ni dañu dañu dañu bokk ay adversaire mm-hmm. euh, nuroowuñu yoonu làmb nag parce que adversaire yi ci benn côté du ñu benn mm-hmm. mais dañu am ay ay adversaire commun ñi nga xamante ne bii ñoo leen boole ba ñu war bëree tey mm-hmm. euh, mën nañ ci jàpp ki nga xamante ne bii mooy Jos ñoom ñaar ñëpp bëree nañu ak Jos ñoom ñaar ñëpp bëree nañu ak Lac de ñoom ñaar ñëpp bëree nañu ak guy gi ñoom ñaar ñëpp bëree nañu ak Sa Cadior numéro 2 muy quatre adversaires en commun ca noonu nag kii booy ñaa Niang ak Tapha seen dugg ci làmb mën nañ ne magan bu dee bu dee ay magarax la ne magante na ñeenti at waa parce que kii mu ngi dugg ci làmb 2004 2005 mhm. la Tapha Tine dugg ci làmb 2008 2009 waaw mu mel ni Tapha moo jiitu ki nga xamante ne bii mooy booy ñaa ci làmb ji wante nag garab ci kaw lay fekkante te làmb du ak maas ab dabe la dabante la ca noonu nag ñoom ñaar ñu dem ba tey ji yàlla boole leen mhm. seen yàlla boole bi mu leen boole Boy Niang moo gaaw yéeg niveau wala Tapha Tine moo wàcc fekk si Boy Niang Tapha Tine moo nekkoon ci ay tolof loolu ñiy topp làmb ñëpp nangu nañ ko mhm. Tapha moo nekkoon ci li nga xamante ne bii mooy ay gàllankoor gannaaw ba mu duggee ci benn claf ba nga xam ne mi ngi ko bokkoon ak Jos Guy gi ak Ama Baldé mhm. am ca ñaari défaite ak benn victoire am ci ñaari victoire ak benn défaite uh-huh. ki nga xamante ne bii moom mooy Ama Baldé moo ko ca daan mu daan ci guy guy gi ak Zos euh, mais ama euh, défaite boobu ko Ama Baldé daan daf ko yàqal lu bari ci carrière uh-huh. parce que moment boobu ko Ama Baldé di daan moment boobu noonu dafa waroon na euh, confirmer ci li nga xam ne moom mooy VIP yi Ama Baldé tamit daan bi mu daan tafaatin moo ko dugal ci VIP yi mu mel ni combat moom Ama Baldé buntu la woon doon ah. yéeg mm-hmm. dafa mel ni ki nga xam ne mooy Ama Baldé moom rek moo réussir ci examen boobu noonu. Mhm. war a bëri Tapha Tine. waaw mën nañ jàpp ne moom rek moo ci réussir parce que euh, Ama Baldé moom moo ci génn ak victoire euh, monté dugg ci ndaje mi nga xamante ne bii fa la ponkal ya nekk. Mhm. mooy cercle des VIP. Mhm. Tapha Tine nag loolu tax na mu mu mu mu reculer ci ci làmb parce que Tapha Tine nii waroon naa fekk ñu naan bëree na ak roi de arènes. wala téye na ndombo tànk roi des arènes. mais nag bul fàtte ne. ndaanaan yi nekk ci làmb ji yëpp tafaatin bëre na ak ñoom ndax maa bëreeg Bombardier maa bëreeg Balla Gaye maa bëreeg ki nga xamante ne bii mooy Yékini Junior maa bëreeg Issa Pouye maa bëreeg Lac de Guiers numéro mën nañ wax ne mennum euh, Modou rek la bëreelul ci làmb ji ci VIP yi waaw ci VIP yi euh, te euh, làmb ngi seen kanam mm-hmm. fu mu nekk nii ci day day daal dugg ci ci pandaw li ñëpp doon xaar mm-hmm. la 8 août mm-hmm. diggante Tapha ak Boy Niang instant bi ñu toll nii ñu wax ci wàllum face to face. seen premier face to face nekkoon li nga xam te ne mooy le 27 mars amee woon feese Joal. Mm-hmm. nga gis ni mu demee nan nga ci jàngat. jàngat ñu ci njëkk a def mooy ñoom ñaar ñëpp bëgg combat bi Ndeye Mbacke. Mm-hmm. xam nga combat lan moo ci neex mooy tëgg ñaar ñu xiifante. Mm-hmm. tëgg ñaar ñu bëggante tëgg ñaar ñi nga xamante ne bii dañu dañu dañu yàkkamtee daje moo tax ba ñu dajee keroog Joal mu nekk daje bu metti nekk daje daje ba nga xamante ne bii ña nekkoon Joal ñëpp kontaan ki nga xamante ne bii moom mooy tafaatin moo njëkk a dugg si mais gis nga Boy Niang man fi ma toogoon fi ma toogoon ñuy direct làmb ji euh, fi la fa la Boy sama gannaaw la jaar. ay feem la bari. mais ba mu dugg see dafa mel ni làmb ji beneen affaire la. dafa dugg si rek làmb ji làmb ji ñëpp jóg taxaw. affaire jaxasoo affaire yi mu daw rombaasu tafaatin fii affaire yi xam nga ci la ci la ci la ñu nangu kaanu Boy Niang kaanu Boy Niang sax ci leen nangukaayu kaan kaan ba damm ko damit man dinaa jël de du ma wax dara hmm? kaan bi ay mbir a ngi ci nag ay mbir a ngi ci ay ci ngi noonu mu nekk face à face ba nga xamante ne bii moo njëkk a annoncé ne làmb ji dina neex waaw ñoom ñaar ku ci nekk nag yëkkati fa say kàddu dafaatin lam fa wax mooy incha allah le 8 août booy ñaa mii du hmm. ma liggéey xajul ci moom booy ñaa ne ko xeeb nga xal mu lakk sa dàgg ndax man mbër laa ma nga xamante ni bii kenn du ma saax-saaxee kenn du ma profitoo te kenn du ma gaawantoo te nu ma neex laay bëree ak yow bu bis ba te ci face to face boobu mu am benn incident bu ndaw mm-hmm. loolu jur lu bëree baree bare bëri ci kanam dinañ ci ñëw ñu mm-hmm. amaat beneen face to face waaw le 26 le 6 juin le 6 juin cosaan le 6 juin cosaan Pape Thialis Faye woote ko mm-hmm. ñu war koo def waaye du ma ne mujjul ancu sax mais Tapha dafa delluwaat këram ndax incident yi fa amoon mu nga ñu cee dellu si waatal tuuti. waaw boobu liñ ci mën a jàpp mën nañ jàpp ne li gën a tax fas à face boobu amul problème mu sécurité ci la bokk. ndax ku ne xam ne ne tafaatin fa muy waree ay xele ñoo koy topp te xele bu deretam tàngee pour mu pour mu yëngu wala pour mu def leneen da yomb. ñaar ba ñu dajee ci buntu cosaan loolee tax euh, coow bari fa li nga xamante ne bii ay jàpp ak ay bàyyi. am fa ba ki nga xamante ne bii moom mooy tafaate ñi mu àndaloon ñu gaañ ci ñu baree baree bari mu jël leen yóbbu leen hôpital ci guddi gi loolu moom moo tax mënul woon dugg si ngir amal li nga xam ne moom mooy face à face mais bu fekkee na moom jamono boobu boo ñaa na ci biir ba toog ci li nga xamante ne mooy plateau bi. li waral loolu ñoo for ci wéy bay ne incident ba amoon Joal moo jur loolu. waa xam nga incident ba amoon Joal nag dafa jàngal lu baree baree bari waa Pikine parce que foofu ba ñu dajee pikin ki nga xam ne moom mooy tafaatin kan bi mu yoroon ñi ànd ak booy boo ñaa kan bi mu yoroon ñi àndoon ak tafaatin dañ koo nangu damm ko bopp gis nga cax ci ci ci vidéo yi ak mm. wax yi ci doon wax mm. wax yooyu nga xamante ne bii jaruñu ciy dell si waat teg uh-huh. tey ginnawul mi ngi noonu euh, loolu nag nekkoon la nga xam ne boo ñaa daf ko bàyyi woon xel bi muy ñëw mm-hmm. bon ñàkkul bi muy ñëw tamit mu ànd ak ña nga xamante ne bii mën nañ ko protéger mën nañ ko aar ba li ko daloon Joal du ko dalaat mm-hmm. mu mel ñoom ñaar dafa am lu nekk seen diggante tuuti rek affaire bi day déborder man xam mu dox loolu damaa yaakaar ne làmb bi dayoo moo tollu ne ni mel voilà. waaw euh, événement bi euh, dayoo bi moo toll noonu. ndax wax naa la ko sànq euh, li dàq ci combat mooy ñaar ñu yàkkamti wante ñaar ñu xiifante ñaar ñu bëggante ñaar ñu ñaar ñu ñaar ñu ñaar war a mbëkkante te yàkkamtee daje. Mm-hmm. Tapha ku ko gis xam ne fi mu toll nii la huit août rek lay xaar ngir mu jàkkaarloo ak Boy Niang la ba nga xamante ne bii waxul benn mag. bàyyi naa la ak yàlla. ca noonu mhm. nag actualité mbëri lañ lañ daal desandi ah ki nga xamante ne mooy Boy Niang mhm. mu nga depuis mu ngi France. Mhm. la mu fay entraîné kan ñamal ñu ko ñu xool. Boy ma nga fële ca Tugal bi muy dem nag dafa dafa dafa selam gaa yi. xam nga mbër yi dañu bëri ay feem bu muy dem def na benn self ne maa ngi dem Siin. waaw Chine meen bi waaw Chine ca ca ca <laughs> borom bët yu ndaw ya <laughs> ah, ah, daroon sànni nit ñi <laughs> mi ngi noonu euh, ne maa ngi dem Chine di sëlëm gaay ñu bëri jàpp ne Boy Niang Chine la dem mais par la suite bi mu demee boo def ay fan ci lañ xam ne mi ngi France mi ngi Paris mais euh, man lam fay liggéey fi mu toll nii liñ ciy ja liñ ci gën a jàpp bokk na ci euh, boxe hmm. liñ for ci wewu béy jàpp na ne Boy Niang fi mu toll nii li muy gën a entraîné mooy xeex ndax ki mu war a dajal fu mu teg loxoom bu ko tegee buntu daay buntu day feeñ mhm. mooy tafaatin mhm. bul fàtt fàttali yaa ngi fàttali fàttaliku tàkkusaan bu mag ba mu amoon ak Bombardier laay laa tàkkusaan boobu de ah yéene moox benn mbër yaa ngi fàttali fàttaliku tàkkusaan bu metti ba mu amoon ak Elton Yékini Junior da ko yoon ba ci kaw dóor ko ci suuf képp kuy bëree ak tafaatin di nga préparé li nga xamante ne bii mooy xeex mhm. ba tax na booy ñaa takk ay dëbësam ànd ki mbokkam dem fële ca France di waajal bu baax a baax boppam ci wàllu boxe jël na fa ay coach ya nga xam ne seen xam-xam dafa jëm ci wàllu box ña ngi koy waajal bu baax a baax ñu nar a gis combat bi na cee gis xeex ndax boo ñaa ne woon na ma su xeexee mu duma ko su bëree ma daan ko. ginnaaw boo wax jooju toqee ci nopp gi nga xam ne mooy la géant du Baol dafa daal di dem lëlu dugg. Mm-hmm. nee na boo ñaa lu mu bañul ci combat bi moom du ko bañ ba tax na mu ngi bi mu ngi ay saalam di entraîner boxe comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. nee lu boo ñaa coupe boobaa mu baatare ko. Mm-hmm. te tafaatin instant bi dafa pare nee lu mu daan lu mu daan bañ bu njëkk ba ren da koy nangu waaye lu mu daan nangu bu njëkk ba dootu ko nangoon ci wàllum làmb lan moo war a moo wax jooju. waaw non wax nga ko sànq combat bi moo toll noonu combat bi euh, dafa nekk combat ba nga xam ne ñoom ñaar fi mu toll nii kenn amul droit def ci erreur. Mhm. ndax tafaatin xam nga ne ci victoire la jógee digganteem ak Yékini Junior bëgg a jëli roi des arènes te bala moo jàll il faut mu am nu mu def ak Boy Niang mhm. Boy Niang tamit jógee ci défaite ba nga xamante ne bii. dafa bëre ba ñibbi dafa bëre ñu ne ko daan nga ci biir stade bi. mu jubilé ànd ak mbokkam dem di fêter victoire bi teguñu ci ay fan yu néew ñu ne ko ñu fuqarti ndam li ci moom joxaat ko la de guerre mu nekk la nga xamante ne bii tamit lu ko metti woon la te it nekk la nga xamante ne bii lu ko bett la ndax foogul woon loolu ndax bëre ci stade bi ba pare ñu ne la daan nga nga dem sa kër di euh, di di di fêter sa victoire ñu jëlaat victoire bi jox ko la de guerre xam nga loolu neexul mu jógee ci defet jógee ci defet nag jëm ci combat ba nga xamante ne combat bu metti la wax naa la ko sànq war a bëree ak tafaatin dayo komba bi moo tax fi mu toll nii ñaari mbër yi duñ bàyyi dara dara dara benn détail waruñu koo bàyyi ndax ku bàyyi détail rek mën nga cee jële tolof tolof bàyyi ñu dara bàyyi ñu dara ba tax na kii di le géant du Baol mayewul fistin ci wàllu mystique nga gis ko dafa méfiant de trop lan moo war a méfiance boobu dafa jàpp ne Boy Niang ci mystique la mën a jaar pour daan ko wala dafa am loo xam ne waa Pikine xam nga xam nga tafaati ñu bëri dañu naan euh, fonkul woon mystique mhm. ba tax na ba tax na am na ñu bëri sax ñu naan kombaam yi jàll mu jëlee ci defet mhm. euh, euh, problème mu mystique la ko gars yi di di di xaw a sonale mhm. xam naa nag ñàkkul mu def benn jàngat ci loolu loolu def ci taxaw seetlu pour loolu ti ko dal moo tax combat bi côté mystique bi moom gis na ne daf kaa teel a daf kaa teel a fësal. ba tax na combat bi sax waxam bëriwu ci. gars yi gësam nañ ko côté bu nekk. yëngal nañ ko côté bu nekk keroog keroog TFM sax nee naa ko mais mbër. ñun say face à face daaw ñu gis lii dañ doon gis boo ñëwee da ngay tàngal. pàccal kaani rij bëgg mais da ñëw di jënd glace boobu léegi. mu ne mu ne mu ne mu ne combat bee toll noonu. te euh, lu lu lu mu war a wax rek lay wax du wax du wax lu mu warul wax ñu gis beneen tafaatin ba nga xamante ne bi tamit dafa màgg ci wàllu communication. parce que kuy ànd ak élage Hadj di ànd ak per Bourkhane. wax dëgg yàlla euh, mën naa ne def nañ lu bari ci moom ci wàllu communication Tapha Tine fi mu toll nii li naan jëf lu bari. wax lu tuuti ci la toll. ci loolu leneen man day Mbacke gisal jëmm ji nii rek jëmm jee fi nekk waaye Tapha ma woon. Mm. changé na bu baax a baax a baax beneen Tapha moo fi nekk. Mm. ci seen plan physique laa jëm ak yow. nga mm. xool Boy Niang. xool Tapha loo gis. ñoom ñaar bi ma leen xoolee parce que ku ci nekk dem naa sa entrainement ku ci nekk dem naa sa entraînement fekk la nga summeeku ku ci nekk xool naa la ci tafaatin laa njëkk tafaatin macha allah tafaatin moom <laughs> booy xool ci jëmm moo ëpp booy ñaar. dañ ko tuddee le géant. waaw moo ko ëpp moo ko sut moo ko guy moo ko ron macha allah tafaatin mi ngi ci état bu baax wax dëgg yàlla mi ngi entraîné bu baax parce que biñ ko fekkee salle bi muy entraîné euh, wax dëgg yàlla gis nañ muy def ay mouvement ya nga xamante ne bii ku ku nekkul ci état mënoo ko. wax dëgg yàlla mu ngi ci état ba nga xamante ne bii bu combat bi nekkoon tey war na koo mën a bëre boo ñaa tamit biñ fa demee gis nañ ne euh, ki ma àndaloon ki ma àndaloon. Mhm. moom bi ma demee ci tafaatin moom laa àndal. bi ma demee ci Boy Niang moom laa àndal mais dañu dañu njëkkee ci tafaatin dem ci Boy ñaa mu ne ma wax dëgg yàlla. Boy ñaa am na combat. Mhm. am na combat bu rëy ma ne ko lu tax mu ne ma ci kin jógee ak kii loo moo nan trop. Mhm. ma ne ko gis nga euh, euh, maas ak doole du benn. Mhm. maas ak doole du benn te dooley xale ak dooley mag tamit ba léegi du ñu benn booy xool ci ay at. tafaatin moom moo mag booy ñaa ci ay at. te olof Ndiaye danaan ku la mujj ci ween rek boo yeexee moo lay ëpp kàttan te Boy Niang moo gën a nekk xale ki nga xamante ne bii moom mooy tafaatin tafaatin nag macha allah mi ngi ci état am na doole pare na ci côté yëpp mais boo ñaar tamit dafa musclé mën nañ wax ne gisuñu ci moom yaram bu bari mais mbër la ma nga xamante ne bii dafa entraîné ba onze dafa entraîné ba musclé parce que daf bi ma ko fekkee muy entraîné même pas 30 secondes rek maa ngi ko gis mu commencé ñàq tafaatin noonu laa ko gisee mais ta booy booy ñaa moom tamit même pas 30 secondes maa ngi ko gis mu commencé ñaq nga xam ne kii mi ngi ci état bu baax ñoom ñaar ñëpp mën nañ wax ne bu làmb ji doonoon tey tey tey tey pare nan pour bëre li nga xamante ne bi mooy combat bu neex dañuy dem li nga xamante ne nii kenn du wax làmb te kenn duñ ko tudd li nga xamante ne mooy aada ak cosaan mhm. ñu ñëw ci wàllu mystique ñaari mbëri ku ci nekk xam ne ay mbër yu mystique lañ mystique duñ ko fooy maanaam instant bi ñu toll sax ku ñu xamul doo leen jege mhm. combat bi parce que gis nga ne mystique koy bëre war la ñuy indi wax euh, xam nga man sama xalaat laa lay wax de. Mm-hmm. waxuma en tant que fi mu toll nii sama xalaat laay wax waxuma en tant que reporter. Mm-hmm. sama xalaatu bopp Mbaye Babacar mm-hmm. boo dajal ci mbedd mi nii rek laa lay wax. gis nga làmb bien vrai que mystique ci la bokk man su ma ko doon yóbbu dama koy yóbbu troisième position wala ma yóbbu ko quatrième position. làmb da ngay am doole mën a bëre am fit. bu fekkee bëre dóor la nga mën a xeex waaw lu ciy tegu soog cee tegu mystique nag baax na parce que benn doomu aadama bu summeeku lu toll ak junney junney doomu aadama tiimu la di la seetaan war ngaa wut la nga xamante ne bii day aar bëti doomu aadama yi ak làmmeñu doomu aadama yi loolu mënul ñàkk ci làmb parce que sarma làmb la te it day taaral li nga xamante ne bii moom mooy làmb mais daal man làmb ji li ma gis boo gis ko li koy li def différence bi bëre lay doon ak doole ak fit. xeex nag dinañ xeex. waaw xeex mënul ñàkk. xeex mënul ñàkk euh, parce que faw ñu xeex ndax Tapha Tine kuy bëreeg moom boo xeexul mu xeex. gis naa ne booy ñaar tamit xeex bi muy woo Tapha Tine da koy jéem a da koy jéem a nax. loolu nax nga gis moom dafa gëm loolu da koy jéem a déggoo li ma la wax de. xeex la koy woo ci xeex bu mu gëmul. mën na koo woo ci xeex bu mu gëmul pour moom mun na mu def benn erreur mu exploité parce que boo ñaan lay bëree buy bëreeg yow comme ni ñu koy waxee curux curux lay def dalay jam coup déplacé gauche wala mu dem lat mu dem wala mu dem droite boo ko toppee boo defee faay mun na laa daan parce que ni ñu koy waxee poids lourd buy jëli day oyof mais boo dalee ci kawam mun na laa gaañ moo tax moom day bëgg poids lourd yi di dal ci kawam moo tax bu la cokkaasee day bëgg nga ñëw peut-être loolu moom moo tax muy wax Tapha Tine na ko damay xeex ak yow mais gisuma ne dina xeex ak Tapha xeex ba nga xamante ne bii xeex mu dóor mu dóor mu dóor mu dóor gisuma boo ñaanee na Tapha Tine fu mu jaar dañuy xeex mais nit ñi soo boo toppee def li nga xam te ne mooy micro mm-hmm. naan boo ñaam bu xeex ak dootu ko defati. Mm-hmm. su ma mënalee uh, wool ki nga xam te nii mooy borom Leewtoo production. mu ñëw mm-hmm. toog fii daal di koy waxtaan ak moom tuuti rek dina baax. mu ne maanaam mbokk yi kii Boy Niang bu xeex ak Tapha Tine dootu ko defati. yow gis nga ne Tapha Tine war naa mën a ragal xeex ak Boy Niang. Tapha wala Boy Niang Boy Niang ragal xeex ak Tapha Tine. moom moom ragalul a xeex kenn parce que gis nga naa la wax benn affaire ci Boy ñaa mbër la ma nga xamante ne bii dafa am lecture de combat Boy Niang mooy mbër mi nga xam ne boo koy dóor dalay xool am na mbër ya nga xam ne boo leen di dóor dañuy gëmm mais moom boo koy dóor day xool kaw bi fan la jëm si ngir mu mën a juyatloog moom mun a mën laa jàpp si waaw boo xoolee ba muy bëree ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès mm-hmm. Sa Thiès ba mu yëkkatee loxo bi dafa def demi flexion mm-hmm. bi mu defee demi flexion wàcc jaar ci poqutaan bi daw takk ko jël ko mm-hmm. ca la ca la jeexal ci kombaa bi est-ce que loolu dina ko def Boy ñaa est que loolu dina ko def Tapha Tine le 8 août moo koy leeral mais man gisuma ne Boy Niang am na mbër mu muy ragala jàkkaar lool xeex ak yow xanaa kay calcul ba est-ce que combat bi jar na xeex wala jarul xeex lool la lañ koy laaj. waaye Boy Niang bu bëggee xam nga tuumal lañ koy wax bu bëggee tiim tuumal ñu naan. teggi teggi tuuma waaw teggi tuuma. xeex lay mujjee def de ginnaaw ba mu demee ba France pour jàng xeex. Mm. ma ne su ma demee dagg ay millions pour jàng dara su ma ñëwee dama koy. boo ñëwee da koy wane. ah bien mën ngaa mën ngaa waajal benn affaire ci làmb. Mm-hmm. ñëw doo ko doo ko gis. Mm-hmm. làmb dafa dafa dafa dafa doy waar. Mm-hmm. mën na la yeb ne la boo demee bëreel lii bëreel lii làmb ji benn song la wala ñaari song la. wala bu arbitre soufflé génnal saako yi wala boo dooree jàppal nga dem ba ci biir géew ba dootoo gis loolu lamb dafa doy waar ndey mbàkke su boobaa nag sa mbiri bopp moo fay des koo sa ñu la joxoon boo demee gisoo ko sa mbiri bopp ngay def parce que caat yaa ngi ba dégg bari ki démb nee na mooy sama papa booy bambara li ma doon wax mooy soo duggee ci géew bi li nga mën ngay njëkk a def boo defee li nga mën ba mu jeex tàkk nga soog a def li ma la jàngal ak li ma la sant loolu mooy làmb làmb dafa doy waar ñu ñëw ci nga xam ne mooy enjeu combat combat bi am enjeu yu garaaw a garaaw a garaaw ndax ku ci nekk rek mhm. mën naa ne ci buntu VIP bi nga taxaw instant bi mhm. combat bi mooy nekk sa clé ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci biir VIP yi Ndeye Mbacké fu mu nii mhm. Tafatine su daanee Boy Niang benn benn VIP dootu ko bañati mën naa sax bëri roi des la Boy Niang aussi kasalikal bu daanee tafa bu daanee Tafatine mën naa dugg ci ay delluwaat ci VIP yi tey ji ñoom ñaar kenn buggul ñàkk combat bi dayoom enjeu bi lan la enjeu bi mooy ku ci nekk wuti roi des arènes rek parce que ñoom ñaar ñëpp loolu lañ bëgg nday mbàkke làmb ji kuy takk ngemb ku nekk roi des arènes nga bëgg a parce que moo plafonné tey boo doon yéeg ci garam bu àgg ca cuppa ca ca ca njubbaxtal la da ngay da ngay da ngay da ngay wàccaat njubbaxtal mooy ca mooy mooy branche ba nekk ca kaw ba mujj ba mujj ca kaw loolu loolu loolu mooy njubbaxtal boo yéeg ci garab bu àgg ca kaw da ngay wàcc te nag fi mu toll nii ñëpp njubbaxtal gi lan soxla njubbaxtal gi nag ki ko yor day ndaanaan Modou Lo borom pousse loxo bi nga xamante ne bii comme pousse machine. curuxu curuxu rek mu lay dóor. <laughs> cuk cuk cuk loxo bi comme pousse machine <laughs> cey Modou xarañ. kenn du mu ngi noonu moo yor ndombo tànku roi des arènes gi nag ba pare waaf si bëggul kenn nangu ko ñëpp soxla ko nag xam nga boo yoree la nga xamante ne bii ñëpp da koo soxla da koy fonk. Mhm. noonu la demee waaye ñoom ñaar daal enjeu combat bi mën naa wax ne mooy roi titre roi des arènes la ñoom la moom la ñuy wuti ñoom ñaar ñëpp boo ñaa bu daanee ki nga xamante ne bi mooy tafaatin digganteem ak ki nga xam ne mooy mooduloo bu bëree ba pare dara dootu fa dox tafaatin bu daanee booy ñaa diggante ama balde ak ki nga xamante ne bi mooy euh, mooduloo bu bëree ba pare rek kenn ci yor roi des arènes bi ah su boobaa nag day gën a neex ci tafaatin foofu day am combat day gën a neex ci tafaatin day nekk combat jànq ci diggante tafaatin ak mooduloo ndax mosuñoo bëri day nekk combat revanche bu Ama Balde daanee Modou Lo ci diggante Tapha Tine ak Ama Balde. nga xam ne Ama Balde dafa daanoon Tapha Tine jël ba nga xam ne bu léegi boo ko tuddee Tapha Tine xol bi dafa mel ni day. day day day fuddu. Mhm. waaw te nag mënuñu koo ñàkk a tudd. combat boobu noonu nekkoon combat ba xam ne bu léegi mën naa ne Tapha Tine ko kon mën na ne enjeu bi loolu la ñoom ñaar ñëpp roi bi la ñuy yootu. Boy Niang dëkk Pikine Ama Balde dëkk Pikine Tapha duggaat Pikine. Mhm. tey jii boo xool ci diggante ñaari pikinoise yooyu lan seen différence ñoom ñaar. Boy ak euh, Ama Baldé ah bokkuñu nag ni ñuy bëree. Mhm. bokkuñu ni ñuy bëree parce que euh, Ama euh, fuuga lay andi ci làmb mhm. te day ñëw léegi ne combat bi day jeex noonu lay bëree daan ma mbaa ma daan la mhm. dama lay daan mbaa nga daan ma te ñëw rek def li muy def su ma koy xool ci benn côté dama naan mook mook ball gay ñoo xaw a nuroo ni ñuy bëree moom Ama Baldé Boy Niang nag. day liir combat wax naa la ko sànq arbitre day soufflé mu may la battement tuuti may la may la li ñuy wax round d'observation jàngat la xool tànk bi nga teg xool loxo bi ngay yëkkati xool fan la lay jaar comme mooy Boy ñaar kon mën naa wax ne ñoom ñaar bokkuñu nu ñuy bëree kii mbër la ma nga xamante ne bii day xaar nga dal ci kawam mu def li muy def kee mbër la ma nga xam ne arbitre day soufflé mu dal ci sa kaw loolu mooy différence bi ñoom ñaar Boy Niang ak amaa Baldé tey ji ñu nekk le 8 août ñu nekk le wit août. waaw Boy Niang ñëw taxaw xaar Tapha taxaw xaar na la combat bi di demee. non gisuma loolu tax ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ñu taxaw xaar moom gisuma loolu. gis naa ne bu arbitre soufflé boobu génn seen diggante. su arbitre ne par ah, ñu tëj barrière yi. arbitre wàcce loxoom. génn diggante Boy ñaa ak Tapha ah, bu ñu bëree deux minutes. dina am lu xew. deux te bindal li ma la wax nag. instant bi Tapha Tine dina dem. wala Boy Niang dina ko provoqué. ki waral mbaboor bi. Mhm. borom Leewtoo. Mhm. TV borom Leewtoo production Leewtoo naka lay waajee bis bi Pape Thialis Faye su ma mënee wuyu dina baax ci man. lool lool lool troisième fois nga koy woo. y a jamais 203 nag ci la <laughs> préparation combat bi. préparation combat bi ak waa Leewtoo production. Mhm. bon Leewtoo ku ku ku ku fi ñëw fi mu toll nii war nga xam ne pare nañ ci côté yëpp ndax euh, li ñu waroon a def ci combat bi yëpp def nañ ko ci te it fi mu toll nii mën naa wax ne dispositif yëpp yu ñu war a jël ci combat bi jël nañ ko surtout côté sécurité. Mhm. ndax yaakaar naa face à bi amoon fële ca cosaan jàngal na jàngal na waa Leewtoo lu baree baree. yee wala axlu lamb ñëpp yaa waale promoteur yëpp mhm. tamit ndax euh, face to face parfois dañu gis day am li nga xamante ne bii mooy ay coow yu ndaw. mais depuis Tafatine boo Niang ba ñu jàkkaarloo ci cosaan ba léegi gisatuñu benn face to face bu am coow. ndax promoteur yu bëri ñu ngi sóor loolu. bu face à face amee dañuy jël li nga xamante ne mooy sécurité bu doy. kon daal mën nañu wax ne Leewtoo production fi mu toll nii pare na pour pour li nga xamante ne bii mooy làmb ji. ñu dégg ci gémmiñ gi nga xamante kër gi. Pape Thialis mu ne maanaam combat bi lu ñu ci bëgg dafa bari. Mhm. waxul rek enjeu combat bi wala dayoo combat bi nu mu nar a toll. bëgg na génnee ay facettes yu bari ci wàllum làmb loo xam ne dafa réeroon ñoo war koon indiwaat mm-hmm. noo gisee loolu waaw xam nga làmb du du du bëre kese ambiance ci la bokk mm-hmm. ambiance ci làmb la bokk te maa xalaat naa jour ba da nga gis ngoyaan mm-hmm. ndukumaan da nga waa nga leen gis da nga gis ndaw ràbbin da nga gis gumbe lépp la nga xamante ne bii aada ak cosaanu réew mi bis booba le 8 août incha allah ca national dina génn yi si des nag dañ koy dëxëñ parce que gars dañoo garaaw boo waxee yëpp mën na laa mën nañ laa pirate <laughs> des dañ koy dëxañ incha allah ba bis ba ñu ñu ñu ñu andil ko gars yi mhm. lalu nekk surprise nag mooy le 25 bi ñu jëm est-ce dañu ko jukkil tuuti ñu xool le 25 incha allah bu ci yàlla àndee mooy face à bi nga xamante ne bi su ma juumul moo nar a mujj mujj dernier face à bi nar a mujj ci diggante tafaatin ak ki nga xamante ne bii moom mooy Boy Niang mhm. incha allah war a am euh, euh, euh, le cinq ñoom ñaar ñu war a jàkkaarloo waxante ku ci nekk jàkkaarloog sa moroom wax ko ni ngay waaje bis bi ku ñu ñu ñu ñu nar leen a gisaan nag ci li nga xamante ne bii mooy seen dernier entraînement ak seen dernier état. soo ma tegalee sa baaraam foofu dañu daal dugal borom Leewtoo production rek mu di dugg sànni ci ñaari kàddu Pape Thialis maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay nuyu donc di nuyu Mbaye bi nga àndal yëpp. ginnaaw bañ la nuyoo nga jëm ci bis bu mag di la 8 août. Hmm. lan mooy préparation fi mu toll nii. waaw avant avant le moom je pense que ne am na yeneen activité yoo xam ne donc euh, euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy préparé dafa am benn dernier phase phase bu ñuy préparé incha allah donc bu xam ne ñu ngi koy def euh, cercle maître des officiers donc mu nekk suñ dernier face to face bu ñuy organiser ak les sponsors ak lamb ak mbër yi bu ñu ci jógee y a deux press yu ñuy def dans chaque fief benn lutteur et maintenant ñu soog a dem le grand jour mi le dimanche huit août ci combat bi. Mhm. Mm. ci wàllu organisation la huit août ñu mën a xaar lan ak lan wala ay surprise ci journée boobu noonu. non surprise lay nekk rek parce que lamb la ñu wax te je pense que ni depuis loolu ni ñaa ngi def lamb ñu ngi innové mais ñu aussi il faut qu'on amène notre une autre touche et touche boobu incha allah dinañ ko indi donc si côté culturel côté côté culturel bi parce que bëre moom je pense que mbër mbër yi ñuy engagé ñëpp xamee ne lañ donc côté culturel la ñuy gën a la ñuy gën a la ñuy gën a mettre l'accent si bàkku yi si si si si si lu bëri loo xam ne daal làmb rafle woon na ko incha allah dañ ko fexe indiwaat. maanaam Leewtoo jour boobu dina indi plus lu bees ci làmb. incha allah rabbi si kattan yàlla. ci le 25 la ñu desandi ba léegi ñu gis ñaar benn ñaar yaa ngi woote face to face. kii bu ñëwee kee du ñëw bu kii ñëwee kee du ñëw la le 25 mën nañoo xaar ñaari mbër yi jàkkaarloo. waaw moom laa xam ñun moom le 25 ñu la ñuy tëgg rek événement def événement. mais contrat bu ñuy léeg mbër bi am na clause yoo xam ne mi ngi ci boobu bu mbër bu ko neexee mën na ñëw bu ko neexee mën na bañ ñëw mais lu ñu souhaité mooy mbër yi ñëw parce que ñaari face face ku nekk absent nga ñëwoo mais teew jël nañ jël nañ ko en compte bu ñu ñëwul aussi dinañ ko jël en mais je pense que li li rafetal li taaral bésu làmb ji di taaral làmb mooy que ñoom ñaar ñëpp ñu mën a ñëw au moins une fois ñu mën a daje si ci plateau pour nit ñi mën a mën a bëggee loolu. Hmm. face to face nan na la nar a demee supporter dañuy ñëw wala da koy def entrée payant wala. non face to dañ ko bëgg a def entrée payant parce que genre soirée de gala lañ ko bëgg a def. donc boo xam ne lamb kese lay nekk mais soirée de gala incha allah donc ñu ngi xool aussi billets yi ñu muy ñu muy demee mais yooyu yëpp ñu ngi ciy waxtaan mais xëy na feeg bi feeg euh, ay fan dinañ ci am lu lu définitif. Mbaye ma bàyyi la nga doxal. Euh, dèjà man euh, damay dellu gannaaw tuuti. ndax ku ne xam na ne combat bi taxawal ko yombul Euh, diggante tafaatin ak Boy ñaar nekk ñaari ndaanaan ci wàllu làmb euh, ni nga def ba décroché combat bi ci laa bëggoon nga ñëwalaat ñu ci. bon <laughs> làmb moom lépp luñ ci def rek je pense que ni max lañ koy lañ gërëmee parce que moom presque mooy suñ donc mooy jox làmb yi mooy xool làmb yi nga xam ne neex na mu wax ñu ko. moom bu doxee bu cangee ñu ñëw ñëw ñëw ñëw appuyer je pense que moom moo ko dox donc lépp mérite bi yëpp si moom la ak équipe bi ñu équipe mu bu mu ànd lépp ci équipe Leewtoo bi ñu ñu gis ne combat bi dafa dafa dafa bëri coow. dafa mm. bari woon coow nga njëkkoon koo jàpp jàpp vingt cinq juillet. Mm. lan moo ko fommoon. waaw li ko fommoon mooy bañ a jàpp jour bi am keneen ku jël jour bi te jour vingt cinq juillet bi ñun moomuñu ko donc daji moom CNG moo ko moom. donc ñu moomuñu date donc bu amee keneen ku ko jël si dañuy dem jël beneen date bon ñu jëloon beneen date yàlla def suñu beneen mbokk promoteur di Mor Mbaye nekk ku baax jox ñu datam le 8 août moo tax ñu jàpp ko 8 août. Mm. Mor Mbaye moo la jox li nga xamante ne bii moom mooy datam mais euh, dañu gis dañu gis caa. Mm. combat bi avant ngay am le huit août bi. ñu mm. bëri doon dute. naan combat bi est-ce que dina am wala du am. ñi naan caalis amatul xaalis bu mu ko tëggee. ñi naan combat bi dootul am. coow li bëri woon trop coow li bëri woon trop ñu gis eh, ci ci fan yu néew rek nga nga nga am datu le huit août moment boobu noonu lan moo xewoon. non li xawoon mooy xam nga mbër moom bu jotee xaalis rek dèjà day bëgg lépp gaaw pour ñu am yeneen yeneen yeneen contrat boo gisee li xew ci contrat yi booy ñaa amaat yooyu yëpp ça mooy wane ni rek seen intérêt la ñuy xool donc nit aussi yow li ngay def doo topp ci yow am nga liñ booy topp liñ boobu laay topp l' essentiel man dama am ñu may waxal mooy samay interlocuteur direct mooy si signé contra yi manager wala agent wu Tapha Tine ñooñu laa amal affaire maintenant ñeneen nekk autour yëpp di wax man sama interlocuteur moo tax wax làmb ji ju ma si bëri wax ju bari damay jëf rek parce que lépp kayit la lu ñu bind la te àdduna moom lépp kayit la contrat la lu ñu bind donc xam naa man fa laay teg sama tànk donc nit ñi moom mënoo leen teree wax parce que Sénégal moo bindoo noonu hmm. léegi nag euh, euh, ñëpp xam na ne combat fi mu toll nii le huit la amagul de <laughs> feesaj na <laughs> moom moom àdduna koy xaar ah, fi mu nii moom picc yi sax combat bi la ñuy sabe Ah, yàlla yàlla si yegg ak jàmm salaam taxi yi ah. tak biir taxi yi combat bi la ñuy waxtaane hmm. boo duggee ci biir tata yi combat bi la ñuy waxtaane ñaar hmm. ñoo gis ñuy waxtaan mënuñoo waxtaan ba dem waxtaanu ci ñuy ñu waxtaanoonu ci diggante tafaatin ak ki nga xamante ne bii moom mooy booy ñaa war a am hmm. le 8 août incha allah le 8 arène nationale combat bi war a amee fi gën a jege ki nga xamante ne bii moom mooy Boy Niang Mm. côté li nga xamante ne bii moom mooy kaaraange ñu koy wax sécurité. Mm. yan dispositif nga nga nga jël. non sécurité moom d'habitude ñun Leewtoo dañuy dañuy respecter sécurité. Mm. ba benn année rek ñu am si euh, remerciement police bi ak gendarme yëpp ñëpp wax nañu vraiment ñun du ñuy organiser ñoom duñ ci sonn. donc yàlla def ñoom beneen événement bu ñu def mu am ci coow. du xeex du dara may ay sànni xeer la yoo xam ne yàq na événement bi mais loolu dañ ko jël garde du responsabilité boobu. parce que xëy na circonstances yi mu nekkoon moo tax mënuñu woon sécurité mais à part de maintenant lépp sécurité lay nekk donc incha allah sécurité bu doy dina fa nekk nit mën na ñëw euh, séran si lam ba ñibbi Dakar dara du la laal incha allah rabbi nit mën na ñëw seetaan si làmb ci ba ñibbiw fa nga dëkkoon te. dara waaw sécurité bu mat sëkk lañ ci def. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw si policier si gendarme si mm-hmm. des hommes sans tenue yëpp dañ ko si def incha allah. Euh, wax na ko wax na ko sànq côté ambiance ak li nga xamante ne bii moom mooy côté aada ak cosaan ñuy xaar la nga xamante ne bii innovation innovation lay doon. ak lu bees. Euh, làmb ji euh, yan tëggkat ñoo koy tëgg ak yan woykat. waaw ñi koy ñi koy ñi ko ñuy tëgg d'habitude pour Leewtoo rek xam nga Leewtoo moom am na ñu tëgg am na ñuy réglé culturel bi. donc ñoom ñëpp incha allah dégg naa dégg naa Wally Seck day ñëw ci làmb ji. ah incha allah ñoom bëgg nañ.